برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان ci seen taxawaay bu rafet ak jàppale fond bu Medina Baye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

ak ci euh, le président commission yi nga xam ne ñoo commission des conférences ci Cheikh Ahmed Boukar, Omar Niang présidé ko ak en collaboration ak président commission scientifique bi Seydi Aliou Abdoulaye Niass jiite euh, boobu ba démb ba tey ñi ngi won ci ay thème boo xam bi thème général bi nekkoon la fayda tijaniya ses inspirations et ses aspirations maanaam fayda tijaaniya li nga xam ne moom la làmboo ci ay boot ci biir baatin bi ak zahir bi tamit maanaam ak fam jëm ak nit ñi mu permettre ñuy si dellusiwaat ci njàngale moo Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mi nga xam ne moo taxawaloon fayda bi ci ndigal bi Cheikh na Ahmad Tidiane bégaloon waaye ci biir symposium bi panel yi nga xam ne def nañ ko fi muy démb ba tey fexe nañ ba parcourir ci fayda bi production yi nga xamne amna fi ci ci walu xam xam-xam ci walu spiritualité luy defar nit waye tamit li nga xamne mom le Cheikh Ibrahim radiallahu anhu jëlone comme instrument comme outil lu mu utiliser pour fexe ba ja ooteem bi tassare daj aduna yëpp ñu ko doon junju sank léegi bo démé bo gisee ñi fi doon jël kàddu doon waxtane mbolo mi danaka dégg nañ fi lak yëpp dembu bés bés bu ñëk bi danaka li ci ëpp exposé yi ñu doon def yëpp ci arabe lañ ko indi deuxième jour bi tey moom lañ jagle woon yeneen langue étrangère yi ndax ku xam communauté Fayda Cheikh Ibrahim xam na ne composé boo xam ne nii diversité li ñuy wax diversité ethnique ak linguistique maanaam mu uutee xeet yeeg làkk yi te moom waxoon na ko sax ci ay waxam ne qad ixtalafatil alsunu wal aqdu muttahidun li rabbi alxaq alhamdu xaqan li rabbi alhamdu ne le kaddu yi làkk yi danañ uute waaye pas face bi ben la mu di ko doon wax nak ci buntu sante yalla rek koku nak ku am comme jiit mu nek ko xam ki ni visionnaire la won xam fa aduna bi di jëm yag nañu dégg ci suñ professeur al almarja Oustaz ibrahim Mahmoud job muy wax ne Mawlana Cheikh Ibrahim ba muy wax ci village planétaire boobu ci année 60 yi la boobu xamaguñ sax luy village planétaire te boobu mi ngi ko don waxee ci ay euh euh, ay turbine yoo xam ne yii nii ci la doon participer ñu di ko ci doon o mu fay taseeg ñoo xam ne ñii nii non alignement moo leen ekkati wala panarabisme wala euh, le le non alignement wala le panarabisme wala panislamisme moom nag xam naa ne taxawaayam foofu panislamiste bu mag la mais panafricanisme tamit bu mag la it aussi kooku nag dafa baax dafa jot fi mu nekk nii tey ñu ekkati niveau bi nga xam ne ci lañ daan waxtaanee ak nit ñi lii dañ koy def symposium bi mu bokk ci yenn activité phare yi nga xam ne mooy mawlid international bu Cheikh bu Medina bay loolu nag bu amee dafay baax ñu fexe ba nga xam ne ñi yi jàll enseignement yi nga xam ne mi ngi jàll ñu fexe message bi ak fu mu mën a gën a mën a sore ndax tey outils yi ñuy outils yi ñuy jëfandikoo léegi pour xeex diine rawatina xeex tasawuf ak. tariqa tijaaniya ba fayda bi tamit rëccut ci dafay dem bay dugg ci suñ biir wala mu nekk sax ci suñ biir kon comme défi yi dañoo bëri nag ju xalaatoon li nii ci njiital commission yooyu ma leen wax léegi ñu fexe ba nga xam ne dañuy taxawal benn turbine boo xam ne dañuy élever niveau yi ñiñ fi dégg sànq ñuy wax ay bindikat ay ay universitaire ay professeur émérite yoo xam ne ñu jógee ko ci dëkk yu sori ay muy Amérique muy Europe ba ci Asie

loolu daal ci gàttal moo noonu li nga xam ne ci lañ nekkoon ci fan yii nii muy ay activité yu dense yu riche yoo xam ne jëlee nañ fi ay jàngat yu bëree bëree bëri te ñi ngi am ay projet yoo xam ne nii dañ koy bëgg di dajale muy communication yooyu noonu pour publier ko ëllëg ndax tamit euh, ku nekk dégg na ñi nga xam ne moom la sëriñ bi joxe ndigal euh, ci njiital suñ rak suñ dokk Cheikh Ahmed Boucar muy histoire générale de la fayda tijaniyya gis nañ déjà ay produits yu ci xaw a yu commencé génn gis nañ fi lu jege une dizaine d'ouvrages yoo xam ne ni publier nañ ko génne nañ ko ci te ron eh, étude histoire générale boobu noonu ci la génne kon daal ci gàttal daal li nga xam ne mooy oote Cheikh al Islam Hadj Ibrahima bi dafa nekk loo xam ne ci xam-xam la tege ci yu leer comme ni ñu ko waxee sànq waaye tamit ci jikko ak ci ekkiti yi tey mu jën a jëm ci kanam ak ubeku ak ouverture bés bi boo xam ne bii nii euh, àdduna yëpp la ñuy lool nak nag euh, bu amee moom symposium bu melni bu amé dana bax loolu ñu léral ko ci euh, di gërëm ñëpp di gërëm média yi tudd nañ leen sànq ci seen taxaway ak couverture bi nga xamné depuis ñu commencé ak tay démb ba tey ñu ngi ci di sant yalla di leen di joxat rendez-vous inshallah dewen amna dañ ko gëna a ci niveau bu pour revenir un peu sur le thème de du symposium qui consiste dans la faille de ses ses inspirations et ses aspirations c'est une tribune qui nous a permis de passer en revue euh, d'une manière générale les enseignements de Moulane Cheikh al-Islam l'âge Ibrahim qui sont fondés essentiellement sur le Coran et la Sunna du prophète, mais surtout un islam soufi. Nous voyons aujourd'hui que le symposium constitue un instrument pour relever les défis auxquels le soufisme, l'islam en général et le soufisme en particulier, quand on parle de soufisme, nous, nous parlons de l'école tijanite, de la faïda tijani et attaquée de toutes parts. Et ce genre de de tribunes, de symposiums nous permet de relever ces défis et de donner des enseignements et des éclaircissements sur ces, sur ces aspects. Le fondement essentiel du soufisme dans le Coran et la sunna du prophète, mais surtout la, la da'wah de Cheikh Ibrahim qui disait à chaque fois que euh, euh, la religion en général n'est rien d'autre que ce qui est fondé sur le Coran et la sunna du prophète dinu Allah qala Rasulullah quand il disait dinu ghayru zikri wa Mustafa dawa'i n'est-ce pas la religion n'est rien d'autre que le Coran et la sunna qui est authentique venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam en quelque sorte c'est cela son rebelle donc pour euh, dire que tous les différents thèmes peut-être mon frère Cheikh Ahmed Boukar reviendra là-dessus qui ont été euh, abordés et rapprochés par des expérients conférenciers, des universitaires, des chercheurs des écrivains qui ont passé en revue presque tous les, tous les aspects et sous-thèmes liés à ce thème général, la faille de Tijani en général, mais son aspect ésotérique et exotérique dans tous les tout, dans tout point de vue. Nous, avons essayé de rabâcher cela et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure pour permettre surtout aussi à la jeunesse et à la nouvelle génération les véritables enseignements car aujourd'hui les défis internes et externes sont nombreux. Et pour le relever, il n'y a aucun autre moyen que ce genre de tribune d'une dimension hautement scientifique. Et nous euh, remercions encore une fois tous les médias qui sont présents pour couvrir cet événement en vous donnant rendez-vous euh, l'année prochaine, Inch'Allah.